lan la yàlla lan la yàlla wax ni moom lay jariñ ci wàllu baatin mooy laalakum tattaquun yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaquun kon li yàlla digle ni koor da koy jëriñ ci wàllu baatin mooy ragal yàlla kon li muy jëriñ ci wàllu zahir nag boo bëggee xam mooy wér-gu-yaram ndax yenn saa san dafa waxoon ni ku bëgg a am wér-gu-yaram del taqoo xiif gu diggu dóom waaye mbokk yi ku ne xam na ni boo wooree ba ngoon da ngay soxla ndox ndax da nga koy manqué waaye ku ne xam na ni boo wooree ba ngoon sa mën naa dérégler waaye boo wooree ba ngoon da ngay soxla énergie kon tey ñu indi leen ay meññeet ak i ferñeent yu am am solo ci wàllu tàndarma léegi léegi lay doon ci biir émission bi bismillah. kon euh, ñëw rek jublu ci liggéey bi comme ni leen ko waxee woon léegi tàndarma gi ñuy waxtaanee tey mooy tàndarma. nii la ko wolof di waxee tàndarma tubaab bi di wax det det wala bokk dat bu fekkee ci arab nag arab dafay wax ak tànnuur lii mooy tàndarma mbokk yi juñ naa leen léegi ñi ngi ci weeru ramadaan tey nag ñuy waxtaane spécial njariñu tàndarma tàndarma ku ne xam na ni am na ay façon waaye façon yëpp rek tàndarma la ndax meññet yi am ci àdduna bi bu nekk am na ay façon ndax sunu suuf si muy sax ak yooyu da ci indi ay wute waaye lu ci mën di am rek ferñeent yi ci nekk moo ci nekk amaa nag am na loo xam ne secret la boo xam ne ku ne war na koo xam mooy ku ne meññet bi sax ci sa dëkk dafay am jeexit ci sa wàllum euh, euh, ci sa wàllum ay ferñeent yoo xam ni suuf si nga dëkk mu sax fa kon tàndarma bu ñu waxee bokk na ci njariñu tàndarma rek nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne euh, juróom-ñaari tàndarma wax nañ ne yenn saa salaam daana ko faral di jëfandikoo daana jëfandikoo tàndarma ak meew lu baree bari moom yenn saa salaam wax dañ ni boroom xam-xam yi dañoo wax ni bokk na ci liy firndeel ni tàndarma lu am njariñ la mooy sayyidatuna Mariam bi muy am doom ci ay at yu néew la ko am kaay tàndarma ci ci ay at yu néew la am doom moom sayyidatuna Mariam mën nga taxaw nii rek waaye yàlla bi mu amee doom suñu borom daf ne ko lekkal ci tàndarma ci kon day wane ni kon lépp ngi ci kon loolu sax dañ ci ñëw wax tàndarma nan la gaawee ci koo xam ne dereetu réglam dafay dafay am ay ay ay ay ay jafe-jafe kon bokk na ci boo doon wax njëriñu tàndarma rek daanaka li ci ëpp solo mooy nga wax ci wàllum koor lan la tàndarma di jëriñ ba yenn saa salaam wax ne bu ngeen di dog na ngeen di dogee koor yéen ñëpp xam ngeen yenn saa salaam daana toqantelee li nga xamante ni mooy tàndarma boo demee ci histoire di nga dégg Seydina Seydou bi mu ganee àddina yenn saa salaam moo jël tàndarma tu tuccal ko ci gémmiñam ba mu nooy mu seexal ko ko kon yenn saa salaam daana dafay toqantal ci tàndarma kon tàndarma bokk na ci ay njariñam li ci jiitu mooy dafa am énergie ku ne xam na ne nit bu wooree ba ngoon dafay manqué ndox parce que toog nga temps bu yàggate te naanoo ndox waaye ku woor ba ngoon tamit dafay manqué énergie ñaari ku wóor ba ngoon boo gisee suñu mbokk sportif bi sax euh, yu baree bari ciy faral di am ci ay wàllu crise ak yu demee noonu dafa yomb tamit boo waree ba ngoon lekkoo naanoo sa tension day wàcc loolu lépp nag tàndarma de ci am solo kon tàndarma dafa dafa yokk énergie kon sportif buy def saa boo xëyee bala ngay ndékki nga jël ñett doomu tàndarma soo ko dee def booy da ngay am doole daf lay dimbali ci wàllu kattan di nga yëg ni bi ngay lekk tàndarma ak bi nga ko lekkul bokkul kon tàndarma bokk na ci ay njëriñam mooy énergie kon loolu nañ ko bàyyi xel bu a baax ñaareel bi li tàndarma di jëriñ bokk na tàndarma am vitamine C kon tàndarma ku koy lekk dina ko dimbali ba yoggaaral ak yooyu da koy wax ci maanaam yoggaaral lépp loo xam vitamine C da koy jariñ waaw ah, kon euh, vitamine C B1 euh, b am na ko ci ay ferñeent kon dafay dafay dafay dafay dafay dafay dimbali nit ki nga xamante ni da koy jëfandikoo am na li ñuy wax cuivre ku xam cuivre ci li muy jariñ ci doomu aadama da ngay xam ne euh, tàndarma boo koy jëfandikoo ñëwal tàndarma boo koy jëfandikoo mën nga ko teg nii rek tegal noonu tàndarma boo ko dee jëfandikoo euh, dafa bokk ci li muy jariñ mooy day defar bëñ dafay dëgëral bëñ loolu ñu bëri xamuñ ko tàndarma day dëgëral bëñ waaye day dëgëral yax tàndarma dafa am cuivre kon baax na trop ci wàllu bëñ baax na ci ci ci ci wàllu euh, euh, li nga xam ne moom mooy ay wàllu yax da koy da koy da koy da koy da koy dimbali bu baax tàndarma dafa am li ñuy wax protéine dafa am protéine am na ci yàpp am na ci lu mel ne ñebbe am na ci ay yeneen mbir waaye protéine daal bokk na ci nga xam ne tàndarma am na ko kon tàndarma dafay dimbali nit ci koo xam ne dafa bëgg prise de poids moo xam góor la moo xam jigéen te façon de prise de poids bi muy def am na ci ay produits yoo xam ne boo ko jëfandikoo ngir poids mën na la may poids ba pare gàllankoor sa xol mais li tax euh, tàndarma am njariñ mooy moom daf lay defal prise de poids bu gaaw ba pare te dafay defaraale sa xol kon lu mu la yokk ci poids rek dina fekk sa xol attan ko parce que dafay dox ci wàllu cardiaque ba tey wàllu cardio ay wàllu AVC wàllu cardiaque ay wàllu euh, lu mel ne tension yëpp daf koy régler kon bu la mayee poids prise de poids bi ci nekk daf lay dooleel ci sa wàllu xol ba doo am ay gàllankoor parce que kon xam ne ni poids boo ko amee te sa xol attanu ko dafay indi ay jafe-jafe kon bokk na ci li nga xamante ni euh, tàndarma am na ko mooy phosphore waaw tàndarma am na phosphore phosphore ba tey xam ngeen ni dafa bokk ci li nga xamante ne dafay dafay dafay dimbali nit ci wàllum pois parce que protéine da ko da koo am kon loolu nañ xam ni euh, lu ci am solo la li nga xam ne it mat naa bàyyi xelaat bu baax ci wàllu tàndarma mooy tàndarma dafay dafay laver dafay dafay raxas ay rein maanaam rein dafay nekk ci nit am liggéey bu am solo bu muy liggéey mooy day segg ku ne xam na ni nit bu ma amee jafe-jafe léppam am na jafe-jafe parce que yaram bi articulation yi ak li muy soxla ci yaramam la ko koy jox segg ko ba lu nekk war a dem dem fa mu war a dem loolu mooy ree kon ree dafay soxla saa su nekk lu koy raxas su fekkee mi ngi gën a set li muy liggéey day gën a rafet ba fenn fu nekk la mu fay joxe day gën a set kon dafa mel ne ndoxum robinet mii rek bu fekkee appareil bi koy segg dafa am problème yow li ngay naan dootu baax kon appareil bi koy segg bu baaxee day mel ne produit bi nga jot dafay gën a baax kon nañ bàyyi xel ne euh, dafa baax ci wàllu ree bu baax dafa baax tamit ci wàllu peau parce que dafa am vitamine A am vitamine dafa bokk ci li tàndarma di jariñ tàndarma ku koy lekk sa yaram dafay nay sa yaram dafay dund te loolu def naa ku ne soxna ko waaye rawtina suñu mbokk soxna yi kon tàndarma ki koy lekk euh, daf koy dimbali deram dafay dafay dafay dafay rafet dafay am li ñuy wax éclaircissant dafay dafay rafetal euh, deret euh, dafay rafetal deram bokk na ba tey ci njariñu tàndarma mii mooy koo xam ni jigéen boo xam ni bu tollee ci période règle am dafay am ay jafe-jafe dafa am ay gàllankoor pour règle yi soit mën na di yéex arrêté di continuer ba jour boo xamante ni xëy na waruloon egg foofu wala boog mu am li ñuy wax règle douloureuse nga xam ne bu fekkee dafay gis règle ñetti fan yi ko jiitu ak ñetti fan la ca topp moom du am jàmm bokk ci waa àdduna daf koy dimbali kon jigéen bi nga xam ne aussi dafay def bu wasinee deret ji di continuer rek daf koy daf koy dindi tamit waaye bokk na ci njëriñu tàndarme mi mbokk yi ñu bàyyi xel ne dafa bokk ci liy may jigéen doole ba tey bu dee wasin accouchement dafay soxla doole kàttan googu bépp jigéen boo xam ne da nga nekk en état di jëfandikoo tàndarma daf lay dimbali. kon foofu rek la ñuy yem ngir bañ gudd ndax ku ne xam na ni jot bariwul waaye émission bii di ñëw danañ def beneen numéro ci tàndarma waaye waxaale conséquences yi nga xam ne tàndarma am na ko. di leen fàttali rek képp képp koo képp koo xam ne bëgg nga di jot vidéo yi nga abonné ci Tawfekh Production bu ko defee di nga mën a am vidéo yi bu baax a asalaamaaleykum wa rahmatullah